aja voilà aja les gars voilà dañuy daal di euh, dem euh, si euh, deuxième mi-temps bi dox si diggante l'équipe Ndiayene l'équipe Seck Ngar bu aja mon ami mon frère Fodé attaquant bu ndaw bi <laughs> waaye attaquant bu gars yi man lay wax et eh, parti entre l'équipe de ASEC et l'équipe de Ndiayene en ce moment un village pour l'équipe de Aseka. Bien Aseka, le numéro 10 a marqué le but de Aseka Ndargundawa. merci beaucoup à Papa Malika Manka Kotale, à dans le Nidati, Je joue rapidement. Ballon euh, pour le défenseur de l'équipe de Aseka Ndargundawa et repousser encore plus. Alors, waaw. woo oh, woon ba pare. paa bi ma doog kaa gis. waaw woon ma doog a réglé li ngay li ngay wax noonu. waaw baax na ko. Adja Abdoulaye Ya Abdoulaye Ndiaye mon ami mon frère Abdoulaye Ndiaye onze maa ngi kontaane ak képp koo yaa ngi seetaan à travers de Falnco maa ngi leen kontaane lu bëri bëri Adja toujours l'équipe de ASEC Ndargou Ndaw qui joue rapidement lan lay waa ASEC ñoom maa noonu le numéro 18 de ASEC Ndargou Ndaw ki jox rapidement lan lay def mu daal di koy jox euh, numéro 10 de ASEC moo téye bal noonu daal di koy delloo si ginnaaw di laa téye aja Fallou maa ngi laa kontaan Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye naa la aja jox rapidement encore à sec. Nous hein. passe à profondeur. Toujours rapidement, encore à sec. Et l'équipe de attention, nous avons à sec, nous avons à Nous à récupérer une ñoo waa Ndiaye récupérer nañ bal ñu daal ci daal la passe à profondeur du côté de l'équipe de Ndiaye et récupérer toujours du côté de l'AC Ndiaye passe encore du côté de l'AC Ndiaye encore dañuy profondeur prendre profondeur face ça Alba ñu daal ci daal doxal la lay def ñoo waa Ndiaye encore attention day romba day romba bu rombé day centré attention oh là là centre est taglé oh là là rapidement ASEC Ndargou Ndaw et l'équipe da l'équipe de Ndiayna attention passe à profondeur l'ASC Ndiayna et l'équipe de ASC passe à profondeur ñu lu rapidement waa Ndiayna ñoom yor ballon récupéré nañ ko ñoom waa ASC Ndar bu Ndaw ñoo ko daal di récupéré ñu daal ci daal doxala passe à profondeur du côté de l'équipe de ASC Ndar bu Ndaw directement le numéro 18 de ASC Ndar bu Ndaw moom moo téye ballon lan lay def sa bal bi attention attention ba dem day dem oh là là di di la la frappe contrée ah. contrée Oh là là. Arvid a dit orzo, jeu a sifflé orzo. Pour l'équipe d'Andiane, ah, il a dégagé encore hein. pour l'équipe d'Andiane. Euh, Pas le repousser pour le, du côté de l'équipe d'Asek Nandargundawa. Encore au coupant. Adjapa Malik, ciao Manga condamné, ne m'a pas encore cassé les top. Bon, pas Malik, Merci beaucoup. Je Mounou, Fallou, Néna, demain, Massi Amna. Demain, Massi Amna, c'est une finale. Demain, c'est une finale de zone 1A. L'AC Koloban affronte l'AC Renaissance de Zangbao et cadeau aussi tamit euh, l'ASC Renaissance euh, affronter l'ASC euh, Colobane cadet senior cadet senior l'ASC Renaissance cadet affronter l'ASC Colobane cadet senior Renaissance affronter senior de Colobane muy 100 pour 100 100% renaissance ak 100% Colobane nee naa la suba day saf fii day saf sàpp ak Boula Blanc ak zone noire fii nii day saf sàpp Boula Blanc zone noire ñu daa téye daa toxal so rapidement encore ñu bal toxal la ñoom yaa ma day jël bal bi jël nañ ko ñoom euh, waa ASEC ñoo daal di récupéré euh, seen i défense nan lay def euh, bal bi ñaari koy passe ci kaw ñu daal téye daal doxal attention passe à profondeur du côté de l'équipe de ASEC Ndargou-Ndaw day dem di téye bal bi ASEC Ndargou-Ndaw encore attention ASEC Ndargou-Ndaw l'équipe de la Sindiane attention waa ASEC ñoom yàlla fànn nan lay def ñàkkaguñ ko ba léegi ñu daal téye attention wala la nee na moom bu saf sap Si je suis en vie, je suis en vie bleu. Je suis en vie en zone noire. Ça a bien le projet. Du côté de l'équipe de c'est le fils d'un Ganjoy. Tu joues rapidement. Il est là, il est là. La Sengiana, elle euh, a essayé. L'équipe d'Asek Dandargono, à ce moment, 1 0 toujours. Toujours 1 0. Il est la Il est là. Il est là. Deuxième heure, euh, l'équipe de Cassor affronte l'équipe de Kerdiaraf à deuxième heure, deuxième demi-finale de cette zone 1D. Il daal ci daal la seen njaay na ñoom ñoo yor ba noonu passe il si si bal bi attention day dem génn touche touche pour la si njaay na. Ayadi leneng. mang leen di lu bari bari ñom waa Lendeng attention jël leen bal bi daal di ci gaw ñom kaw ñoom ñu jox ils ont attention coup franc coup franc jëm Momar jallo leen bi day am xex Momar déedwaay bu wax lolu bu wax lolu yalla bu mu am xex nañ ko fubal ci jamm football ko si salaam ku la meilleur man loolu ñaan man nee naa leen tant que am si stade bi man daf neex damay kontaan man. Nous avons un joueur à 50 ans, est blessé jour il y a un jour d'Asec Dandargoudaou euh, blessé, mais en ce moment, pour l'instant, on joue à 52e minute de jeu. 52e minute de jeu, toujours 1 euh, but à 0 du côté d'Asec Dandargoudaou. Euh, le numéro 10 a marqué le but d'Asec à 40 minutes de jeu. Aja di jaar waa ASC Teranga maa ngi leen kontaanee Sarr nee na ASC Teranga kase merci nee kañ lay joué non ASC Teranga nag xamaguma kañ lay joué day joué demi final moo xa ah, l'ASC idéal mais xamaguma kañ lay joué moom ah, l'ASC ah, Teranga et l'ASC idéal match boobu xamaguma kañ la waaye bu leen fàtte jongul bandul ay jàkkaarloo aja ba lay ñëwaat daal joxo la jël leen bal bi jox ko jox la latéral le numéro 17 euh, de côté de Asek Dandargundawa. Je lui passe magnifique. Attention, ballon sorti. La ballon sorti. Adjamé Suba à coup Ibrahim yang Nena Matafa Siarnala. Adja mu ngi fees sa sag mbaaw di ma seetaan moom Ibrahima mu ngi fees di ma seetaan maa ngi kontaane encore ko daane moom Ibrahima Niang niin ma waa Zac baa yéen a seen final bi du ma ne dama naan waa Zac Mbao baa yéen a ngi préparé seen suba loolu laay laajte waa renaissance baa yéen a ngi préparé seen final suba waaye bu ma jógee renaissance damay waa Colobane naa yéen a seen final bi suba suba seen final bi naka demee da di sàcc wala doo leen sàcc dee neexal wala dee neexal ah lay nee naa leen final bi suba du yomb barke Rasulaay final bu nar a neex entre Colobane et Renaissance oho aja Abdoulaye Ndiaye nee na ma Tafa borom ziade borom ziade ma ngi aja muy noonu waa Ndiaye ñoom lañ mëne waaye ñu ngi supporté lu neex barke Rasulaay ñu ngi supporté lu neex oh waa ASEC dañ maa sori moo tax waa ASEC dañ maa sori moo tax

après match yi dama koy jël nee naa leen képp ku gañe maa yow ba koñ képp ku gañe suba maa yow ñooy ànd ba koñ incha allah rabi ñu feetandoo bi waaw waaw incha allah rabi leer nañ laa leen suba ku jël final bi maa yow ñooy ànd ba koñ daal di feetandoo final bi. aja merci beaucoup Ablaye Ndiaye nee ma renaissance rek la ñuy topp aja merci beaucoup Sarr nee na 100 pour cent Colobane aw bi a ah Colobane teranga maa la ko ñoom ñaar ànd bu yaa la ànd bu yàgg barke yonent bi acca centre nañ ko si kaw ñoom waa ñoo jël bal bi lan lay def si bal bi ñoom waa ASEC toujours ñoom ñoo rabal na lan lay def toujours station passe à profondeur ay récupéré du côté de défenseur euh, coup franc de gars de Gaulle Adja Abdoulaye Ndiaye nee na renaissance laa ilaaha illallah ay waay waay waay waay Ndiaye ça c'est des supporters de l'ASC Ndiaye ça c'est des supporters de l'ASC Ndiaye waa Ndiaye daa mel ni ñoom ñoom ñoom ñoo mëne oh ñoom moo waroon jege fii waa ñoom moo waroon jege oh waa ASC liñ ma jegewul métti ma ambiance c'est la ambiance c'est ça une ambiance oh maa bëgg ambiance

C'est ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance. Mais actuellement, Kertiraf, arrivé de la Garaf. Arrivé de la Garaf. Arrivé de la Garaf à ce moment. la Latif. aja nee suba nee naa leen suba stade bi dina ay fisir laa suba oho nee suba Fall ay dina ko dëbb day dëbb stade day dëbb stade bi suba <laughs> aja saa waa mel na Maamilor ñoom euh, la 30 la ñu ko seen final waa mel na Maamilor incha allah rabi aja ñu aja jokku rek la ñu Adi Diraté doxal toujours passe à profondeur et dégager encore pour le défenseur de ASEC Dandar Gounaw. Adi ba léegi Diraté attention waa Ndiayène récupéré nañ bal bi lan lay def attention yalla taakale <laughs> eh, la la la quel tacle là quel tacle là oh eh tangue tangue de la yaro wa tangue nyongini le le le Sa tanga que gaño, da tanga que da. Cierra la bayo, cierra la bayo, cierra la bayo. Abdoulaye Abdoulaye Ndiaye loolu daan Rufisque dafa neex parc yonent bi man dama dama bëgg a loolu daan Rufisque parc yonent bi man nee naa loolu daan Rufisque mbuur laa dem mbuur seen i daan xam nga lan lañ doon way <laughs> ay kankuran <laughs> mbuur seen i daan ay kankuran la ñuy way ay kankuran amuñu ñoo supporter. <laughs> aja merci beaucoup ah. am Mansour ah, maa ngi kaa kontaanee ah, Mansour nee na ma faal encore rek. merci beaucoup à Ndiaye mu xamee nee na ma fàle ko nekk lay topp ñu daal ci daal doxal dégagé encore ah. ñu daal ci lan lay def toujours l'équipe de l'ASC Ndiayène l'équipe de l'ASC ASC Ndargou Ndaw waa Ndiayène ñoo ko daal di récupéré lan lay def si bal bi ñëw waa Ndiayène passe à profondeur du côté de l'ASC Ndiayène récupéré du côté de ASC Ndargou Ndaw ñu daal di téewaat ah, toujours waa ASC Ndargou Ndaw lan lay def si bal bi noonu toujours attention la oh la ballon récupéré du côté de Ndiayène le défenseur de l'ASC Ndiayène boo ko déggee oh là là il a oh là là joli passe magnifique ah. ay waaw supporter ASEC dañ maa sori supporter ASEC dañ maa sori merci beaucoup à Arbouri ñu raati toujours euh, tous encore du côté de ASEC de Ndargou-Ndaw en ce moment il joue euh, à 60 minutes de jeu toujours un but à zéro du côté de l'équipe euh, de ASEC de Ndargou-Ndaw mais en ce moment l'équipe de les supporters de l'ASEC Ndiarène ñu ngi supporter pouce pousser seen équipe pour rendre le ndam li aca di nuyu Difficile Guelwaar di féliciter Wa encore une fois Guelwaar c'est le c'est l'équipe de Papito c'est l'équipe de Papito maa ngi kontaane di encourager waa Guy aussi attention la centre la tête directement dans le milieu du portier te Baye Fall oh allez jouer rapidement ak kii lan barki yonent bi stade baa ngi yëngu stade baa ngi yëngu les gars stade baa ngi yëngu aja merci beaucoup aja merci beaucoup à Rawane merci beaucoup Tafa manika man tamit merci beaucoup Rawane la tête aji ñu la di bëgg di sa boko daal di mbëkkaat mu gaari di génn te joko la lay defa encore une fois la sec dandar gu ndaw ñoko daal di dégager te profondeur lañ daan duggal la lay defa ño attention bal génn no si met aja damay uh, féliciter l'équipe uh, ta gelwaar ci victoire bi ñu am kérok contre uh, Guislan waaye damay féliciter aussi tamit l'entraîneur de gelwaar Pepito muy doomu Guy Salane maa ngi féliciter encore une fois di encourager euh, l'équipe de Guy Salane di leen encourager bu baax a baax a tamit damay féliciter ñi nga xamante ne ñoo di waa Jaloore dama leen féliciter bu baax a si euh, victoire bi nga xam ne am nañ ko si kaw idéal waaye tamit euh, damay encourager l'équipe de l'ASC idéal l'équipe de l'ASC idéal di n'est pas méritée waaye dese nañ li nga xam te ne moo di départemental moo ko waa Teranga damay ñaan non à la violence man loolu laay ñaan chaque jour boo leen bëggee nawetaan bi neex aji ñu daa téye dina joue passé à profondeur euh, ballon récupéré du côté des défenseurs ta à secteur dar gu ndaw ñu daa téye daa doxal oh là là la ilaha illallah joue rapidement à secteur dar gu ndaw aja Albouri toujours merci beaucoup à Albouri nee na daf may envoyé 500 wala 3000 loo ma envoyé ma jël envoyé rek garaawul garaawul moom envoyé kay damay jël aja toujours ko waa Ndiaye ñoom ñoo bal nañu passe à profondeur du côté de l'équipe de Ndiaye la toujours rapidement Ndiaye na encore ñoo bal nañu Ndiaye récupère waa dañ seen bal ñu daa téye daa doxal à ce moment Ndiaye na mu ngi préparé li nga xam te ni moom mooy deux changements moom moo Ndiaye na ba léegi ñun téye bal nañu le numéro 13 de la seen Ndiaye na oh là là arbitre ki di ree ñu daa téye waat le numéro 9 de la Asec de Ndargu Ndaw taclé merci beaucoup Andiaye Mouhamed euh, nee na ma merci pour euh, Guislande Ndiaye Mouhamed maa ngi kaa kontaanee nee na ma merci euh, pour Guislande aca changement changement du côté de Ndiaye waaye supporters yi d'accord ñu d'accord ñu supporters yi d'accord ñu le numéro 7 moom mooy génn jox place am le numéro 11 le numéro 8 aussi tamit mooy génn kan lay jox place le numéro 7 mu ngi le numéro 11 du côté de l'équipe de la le numéro 8 aussi d'habitude, euh, kan le numéro 8 n'y a pas de place de jël place su kan. merci beaucoup. Hein. papa Maodo papa Malick Thiaw maa ngi kaa kontaanee nee na ma équipe bu mag bi teewoo ah, la teewoo équipe bu mag bi la teewoo équipe bu mag bi teewoo la <laughs> équipe bu mag bi Fall Enco la. aja damay ziar waa ngañ doy du ma taay di ko wax nee naa leen ñooñu man ñooñu dama leen sopp dama leen bëgg dama leen ndamoo saa su ne ñoom waa ngañ doy nee naa leen sama xol la ngañ doy moo si ne. waaye damay ziar les jeunes amicales de Darou waa FC Gueto maa ngi leen di kontaan ñu ngi préparé seen final le 4 le 4 décembre nee naa la stade bi yomb Kakalam l' équipe de l'ASC jeunesse amicale de Darou Salam waaye damay ziar waa Kakalam di ma leen fàtte mukk ñoom waa Kakalam non la violence maa la ko wax l'ASC ziar l'ASC Kakalam nee naa leen ñooñu ay référence lañ ñooñu ay euh, référence lañ ci nawetaan rawatina laajte Kakalam rawatina laajte euh, Ziadé ñooñu dañuy def non à la violence zone 2A moo neex zone 2A jamais nga gis xeex foofu noonu zone 2A kenn du xeex barke yonent bi nar nga gis final mu neex entre Kakalam à laajte Ziadé waaye man FC Guédiawaye man dañ may te ma leen neex barke yonent bi waa FC Guédiawaye rek laay ñu ngi ñu ngi peinture di préparer seen final bi waaye boo demee Kakalam bu na balaa desetu fa. soo demee Kaakalaam bu la planté surtout pas barki yonent bi Adja merci beaucoup à Sénébou nee ma merci pour Guelwaar Adja ah. wa Guelwaar kese PSD maa ngi kontaane moom muy ah, di ma seetaan waaye de kenn du waa Guelwaar ah. ñoom tamit ñu ngi préparé seen final bi ñoo waa Jaloore keroog wax naa ko ba Guelwaar gañee ki léegi équipe boobu mu gagné si match bi sa poule bi ba gelwaar gagné bokk jom naa ne gelwaar bi nañ ko bàyyi xel équipe la buy dem te kuy dem kenn du ko téye waaye kenn du bokk kenn du jaloore la ilaha illallah oho final ngeen di gis barke rasulaay waay waay waay boobu kan laa war a faral la ilaha illallah ay waay final boobu kan laa war a faral dama xamul nag gelwaar laa war a faral dama xamul ndax ki nga xamante ni ah, moom moo di Jaloore war a xanaa mën na tudd merci beaucoup ah Albouri nee na ma Jokko mooy autorisé zone 2 le 2 décembre incha allah ndam rek mais final boobu le premier lañ jàppoon Albouri xanaa kon nañ ko avancé le premier décembre la incha allah rabi final boobu noonu le premier décembre aja ba léegi ñu daal ci daal naa leen man ah, dama damay gis ASC yi xoolal di aja di ziar ki nga xamante ne moom moo di ah, Ndiaga Mouhamed aja Mouhamed maa ngi kaa kontaanee ah. ma merci pour jaloore amul bàyyi maa la ko wax aja les gars maa ngi leen di kontaanee ay waay kenn Finalo Diapo, LAG B2, oh final do Japão, Elas 2 centre nañ ko ba lá lan lay def la tête ba léegi le numéro 11 la frappe goal Ndiakha Indala waay Indala awa nee naa leen kenn du final LAG Diapo LAG B2 nee naa leen kii di Bédé si machine poul daa dooroon ki nga xam ne moo di jàppoo deux man kenn du ma dóor dóoraat taxaar saf ñaari yoon <laughs> jàppoo dafa ne Bédé saf ñaari yoon <laughs> Bédé ne ka Bédé ne ka taxaar dina saf safar taxaar day sal <laughs> waaye tamit seen machine bi a am le 4 man fan laa war nee nañ daxaar du saf ñaari yoon. waa Kaakalam nee nañ daxaar day saf ñaari yoon. mais jour boobu noonu man lañ paree ne bés bi. maa ngi paree maa ngi paree bés bi mais kenn du final suba bi. wala ban renaissance. en caréance senior. nee naa leen final bi na nga koy am na nga koy am avant final supporter dugg si bi c'est Falengo après match nee yang leen ku gañe ku ne jàppal ni Palenko day ànd ak ba sa koñ waaye après match waye avant match et après match ak pendant match oh oh oh, oh lo réew mi dina yengu barke rasulallah ko boo de nee na bi da am problème sama jabat di momay wax sama jabat Halo, halo. Abdoulaye Ndiaye maa ngi kaa kontaane nee na ma Tapha yow ziyaane nga far <laughs> non ziyaane laa laa far waaye damay neutre damay neutre Adja arrivé de l'ASC Castors arrivé de l'ASC Castors Oui.

aja di ziar waa Jokko nee na ma Jokko rek lay supporté moom Omar Omar Fai. aja di ziar waa Gelwaax aja waa Gelwaax maa ngi leen di kontaane lu bëree bëri waa Gelwaax maa ngi leen di kontaane di leen bëggee di leen jox seen arrivé euh, de l'équipe de Castor En ce moment, on joue à 73 minutes de rapidement. Dans Il a dit la Dégagé encore et repoussé pour le défenseur de la passe à profondeur du côté de la Ndiaye encore Ndiaye attention oh là là dégagé. le jeu le défenseur a accepté Ndargou Daw a dégagé le ballon Adja Djibril maa ngi laa kontaane nee na ma gelwaax rek final Adja mu ngi noonu final pare au fait rêve attention ba léegi ñu daa téye daa attention centré nañ ko waaye toujours contré nañ ko beneen centre encore mu dem directement le numéro 11 joli contrôle de l'équipe de de numéro 11 de l'équipe oh la ilaha illallah oh la la irida walla ba léegi ah, dégagé na ko waa Ndiaye daal di téewaat seen bal lan lay def ah, toujours ah, la seen Ndiaye na l'équipe de ASEC de Ndargou Ndaw qui joue rapidement encore. joxolo ajeti sa wa jongul bandul jongul bandul on joue jeudi prochain inchallah contre Boultogne jongul bandul ak Boultogne loolu inchallah jeudi le 23 oh là là loolu di ngeen ko mën a am en direct ci Fall Info nee naa leen demi-finale demi-finale du ko daax barki yonent bi demi-finale yi gën a neex ci demi-finale yi demi-finale boobu la léegi ñu naa tey lan lay def toujours ASEC de Ndargou la frappe sorti Aja leen da ngalam demi final bi kagn la xamaguma ko leen da ngalam demi final bo xamaguma kagn la grati aja jongul bandul mang ngi leen di kontaane Mouhamed Samba maa ngi kaa kontaane ma jongul bandul kase aja di di leen préparer leen jeuri inchallah rabbi ñena wa bul togn passe à profondeur du côté de la Sindiane directement dans les pieds de Baifal c'est Baifal Baifal eh. <laughs> Baifal eh. bien joué Baifal sur la tête d'Antoral je rapidement encore l'équipe d'ASEC d'Antargoutao. Nous avons nous qui dégagé, qui joue rapidement. Attention, oh là là, personne qui va dire, nous allons repartir. Nous allons tirer dans le jeu. Adja, Kumba, manque à condamner, à parler, nena na gel rek final eh, par force incha allah aji joue rapidement le numéro 8 euh, de la Ndiaye la euh, moom moo téye ballon lan lay defar si ballon yi ñu daan koy cross crossete passe à profondeur du côté de la Ndiaye récupéré du côté de défenseur de ASEC Ndargou Ndaw ñu daan téye daal doxal attention dégagé nañ ko ballon génn ballon sorti carton jaune Carton jaune pour le numéro 4 de ASEC de Ndargou-Ndaw. Adja merci beaucoup à Ndiaye Mouhamed nee na ma ASEC rek dañuy topp. Toujours rapidement ñu raté daal di doxal ASEC de Ndargou-Ndaw et l'équipe de l'ASC e Ndiayène waa ASEC lan la ñuy def doon dégagé nañ ko mu daal dem seen camp ASEC de Ndargou-Ndaw ñoo dégagé bal bi dem na directement dans le meilleur portier de l'équipe. Euh, Ndiayena directement dans le mairie portier de Ndiayena merci beaucoup Ambay nee na ma jongul bandul rek lañu coob nee na ma demi-finale jongul bandul kañ loolu jeudi la allah loolu jeudi la ñoom ak waa bul tooñ attention arbitre a sifflé hors jeu de l'équipe ta Ndiayena Khadija Mbaye seen nee na ma jongul bandul demi finale bi kañ la ma ne demi finale jongul bandoul moo wax l'équipe euh, de Boultogne loolu jeudi la le 23 inchallah allah. aja di courage laay seen nim saat doomu nday ziaré di courage taw yéne a kon champion de cette zone 2 waaye ren euh, ki nga xamante di garga mo len toklo par demi finale tiro bi waaye bon sañoon tem li nga xamante ne moo di finale tiro bi nee naa leen chance la série de tiro bi chance la kuñ si gagné rek jàppal ni chance lañ la gagné waaye nga def la bal le tout pour yeggal li nga xam moo di final waaye yàlla moo nanguwul la attention ba léegi yaa dem attention passe à profondeur attention ba léegi le numéro 11 moo récupéré bal noonu tey centré centré na bal bi yaa téye attention arbi neen dara amul ba léegi le numéro 11 la frappe baaxul door yu baaxul aca cay na ba borom lebu gi euh, borom olympique de Missirah maa ngi nee na ma Salam Tafa le reporter le grand reporter aja le grand reporter nuy naa la merci beaucoup aja Sénégal Togo zéro but partout en ce moment Sénégal, Togo, zéro but partout en ce moment. Entre Sénégal et l'équipe de Togo, 0 but partout en ce moment. Adja Aïdegui, manque à condamner. C'est le bon sens. À notre euh, l'équipe de la Ziaré. Adja Mouguinono, la Ziaré. El Hadj Kakalam la 4 décembre c'est une finale André direct sur Fall coup. oh là là maa kontane kaa mon lami ma frère Doudou Faye Doudou Faye bu FC Ghetto maa ngi lu beure ah. na la le maire aja merci beaucoup à Doudou Faye Neymar Junior ndamli ah. ndamli ndam la maa ndamli parce que ça c'est di ndamli adje merci beaucoup à Mouhamed ah. Mouhamed hassan Samba maa kontane kaa lu bëree bëri nee na ma jongul bandul kese

mais loolu la final daa bëri ay taxaar du saf ñaari yoon dinaa xool nag ban final mooy mooy ban taxaar mooy saf ñaari yoon ak ban taxaar moo dul saf ñaari yoon man loolu dinaa ko xool ban taxaar mooy saf ñaari yoon ak ban taxaar moo dul saf ñaari yoon loolu dinaa ko xool ça c'est grave. mais su ma juumul tamit moom kon foofu taxaar du fa sam ñaari yoon ah. kon foofu taxaar safagu fa waaw ah, kon foofu taxaar safagu fa aje merci beaucoup à Tafa waaw waaw pour jéego daa raxmaan la yëkkoon ke aja Tafa maa kaa siyaaxa nee ma deewoo kese nee na ma deewoo sa xol aja di ja Pape Maguette nee ma deewoo en final xam naa ni deewoo en final en J'ai eu un moment 23 minutes de jeu 23 minutes de jeu entre les deux équipes La Ndiayène et l'équipe d'Asek Dandar de mais le portier de la Ndiayène à terre il a blessé en ce moment Ibrahima maa ngi kaa kontaane bu baax Ibrahima Mbengue Ibrahima Mbengue maa ngi kaa kontaane ah, Ibrahima moom ah, Diallo lay supporté ah, Adja Aïda maa ngi kaa kontaane Adja nee na mu ngi si kaw ziyaade ndam rek incha allah Aïda moo wax loolu bu samay wax Aïda Gueye la nee mu ngi si kaw ziyaade ndam rek incha aja Abdoul Aziz Abdul Aziz manque à kaa le lu bëri bëri ah, Aziz changement pour l'équipe ASEC de Ndargou ah, il y a fait un changement le numéro 6 sorti entrée pour le numéro 15 aja Dieynaba manka ngi kaa kontaane na sens olympique de Cadet Olympique de Missirah moom moo dem final moo éliminé Cadet ASEC Ndargu Ndaw moo éliminé Cadet ASEC Ndargu Ndaw aji ñu daal ci dégagé nañ ko encore ballon repoussé encore du côté de ak Ndiayène ñu daal ci daal toujours le numéro 5 de l'équipe de Ndiayène nangu nañ ko si ñoom waa ASEC ñoo ko daal di nangu récupéré nañ ko dégagé nañ ko encore dem na directement si camp waa Ndiayène ñu laaj ci daal doxal ñoom waa Ndiayène lan lañ def si bal bi le capitaine de l'ASC Ndiayène moo téye bal noonu passe à profondeur ñu laaj ci daal doxal attention joue rapidement Ndiayène encore passe à profondeur on joue à 86e minute de jeu en ce moment toujours 1 but à di côté de ASEC de Ndargoundaou waa Ndiayane ñoo yor ba le numéro 10 arbitre amul ñu daal téye daal doxalaat bal bi delloo nañ ko si ginnaaw waa ASEC di téye daal doxalaat passe à profondeur du côté de ASEC de Ndargoundaou oh là aja roxoye fay maa kaa kontaane ne la ma laaj si ah, jàkkaarloo ndam rek joko bi le premier encore pour le défenseur de la de Baifal Baifal a fait une sortie euh, pour capter la balle. 71 minutes de jeu. Non, non, 76 minutes de jeu. Adjoujo rapidement. C'est 86e minute de jeu. Albury, c'est 86e minute. Et Saint-Antoine, Il a tiré Attention. Attention, collègues. xam ne dara amul directement Baye Fall moo téye bal noonu aji am Ndiaye maa ngi bu mag bi Baye Fall jàpp ko daal di tëdd moom di saa waa jàkkaarloo ASEC jàkkaarloo Rufisque mooy dirigé Mamadou moo wax mu daal dem directement la tête de défenseur da Ndiaye na ñu waa ASEC repoussé waat nañ ko mu daal dee ba léegi ñu daal téye daal la seen jaay na bu daw lan lay def si bal bi ñoom waa ASEC attention ba léegi bal bi si waa Ndiaye ñoo ko daal récupéré ñu daal koy génne seen camp qui joue rapidement dégagé encore du côté de l'équipe de la SIA ASEC de bu daw directement dans les mains portier de l'équipe de la SEC Ndiaye na directement dans les mains portier de de la na rapidement daal di koy daanu na mbaaxu na il avait une mbaaxu ba léegi attention gaañu na da kaa conc aja xelaas yi waa xelaas yi njëng nee na njaay collègues et à tous. merci beaucoup anjay Mouhamed nee TFC lañ wax merci beaucoup Andiaye Mohamed. Ah. toujours euh, di ziar Kakalam Je ngi leen di kontaane bu baax baax ah. PTT maa ngi kaa kontaane mu ngi Kakalam di ma seetaan nuyul ma waa Kakalam yëpp de leen maa ngi leen di bégee voilà c'est Kakalam bàyyi ma kenn kenn kenn ñoom tamit boo demee seen koñ boo demee Kakalam instant yii bu la balaa mu ngi fay barki yonent bi attention centre day centre la centre goal la deuxième but du côté de la secteur d'Argoudao le numéro 15 la secteur d'Argoudao a marqué le deuxième but goal Didida 2 buts à 0 pour Asec Ndargoudao 5 دا سکتن در گونه و آسمان دابی آجاو بغل کیپ دا سکتن در گونه و لندی مرکز دا سکتن در گونه و امر که لندی بی سنگ منیت تار سنل سنگ منیت تار سنل سنگ منیت دا تار سنل بغل کیپ دا سکتن dans Dargounda ou oh là là. Adji Nurati daa doxala toujours assez dans Dargounda ou l'équipe de la Ndiayena waa Ndiayena ñoom yor ballon li ma ko woon sax waa dinañ ko si kaw waa Asic daal di koy récupéré daal di koy ñàkkaat waa Ndiaye daal di koy récupéré waa toog coup franc arbitre a sifflé coup franc carton jaune pour le numéro 12 de Asic Ndargou Ndaw

daa doxal rek koy centré Pandian bëkkaat nañ ko le numéro 11 boté ballon bal noonu day centré bu daal di dem ci kaw bëkk nañ ko toujours quoi asec de ndargo bal bi ci surface yi gënë nañ ko seen camp borom kat la Mamadel mo dégager bal nonu ki jour rapidement asek de ndargo ndaw l'équipe de Ndiayène attention lan lay def ba légui bal bi ci wa Ndiayène ñoo yar ballon le capitaine de la seen Ndiayène ñàkk na ko mu daal di toujours attention wala la ballon dégagé ballon dégager pour le défenseur de la Ndiayène attention ba léegi attention waajaan ñàkk nañ ko attention Pape Nar le numéro 12 oh là là perte na ko perte na ko merci beaucoup à Guèye Babacar Guèye Babacar nee na ASC kese amul leen aja ba léegi ñu ah. ngi ci doxala ASC Ndargou et l'équipe de Ndiayène waa Ndiayène ñoom ñoo bal noonu lan lay bal bi waa Ndiayène habite cinq minutes de temps la joxe waaye fu mu nekk nii euh, deux minutes de temps additionnel demagum na mu des euh, trois minutes de temps additionnel en en finale en ce moment ASC en finale yaa may yëngal rek. aja Baye Fall dégagé na bal bi Baye Fall moo dégagé bal bi ñu daan téye ñoom waa Ndiayène daal di récupéré waa seen bal passe à profondeur ba léegi le numéro 11 Talaay Sène Ndiayène moo téye bal noonu lan lay def attention attention ba léegi centré na ko ba léegi le capitaine Talaay Sène Ndiayène la frappe oh là là 6 mètres 6 mètres aja di jaar waa bokk jom xaali xaali caw nee na ma bokk jom rek la ñuy topp aja ba léegi waa Fatou Diouf man ka kontaane nee na ma bonne chance laay see kasoox bonne chance laay see kasoox dina ti daa doxal passe à profondeur du côté de l'équipe da ASC Ndargou Ndaw waaye arbitre nee na hors jeu moom la arbitre wax euh, tout tout franc la arbitre a ñu raté jour rapidement encore ñu raté daal doxal laaj seen jaayeen laaj seen jaayeen ñoom yor ba noonu lan lay defa ah? centré nañ ko waaye dañ kaa taakale taakale nañ ko ñu raté daal doxalaat attention jaayeen na l'équipe de Castor encore ba léegi ah. ñoo teebal noonu waa ASEC Ndargou Ndaw ñoo teebal noonu lan lay def si wàll yu ñoom waa ASEC Ndargou Ndaw passe à profondeur du côté de l'équipe de ASEC Ndargou Ndaw amen naa ko moo neebal noonu Pape Naar Pape Naar jox na ko nga pour adi teewaat au oh la zone contrôle de Pape Naar le numéro 3 de ASEC Ndargou Ndaw moom moo teebal noonu lan lay def sans à retrait au oh la contré contré contré toujours toujours loolu laa lay wax voilà ban sa duma ko aale saa duma ko aale bu sa sol waaw damay fay ma ko day yàqu ma bokkal. Corner. Adja merci beaucoup. Adja Marema maa ngi kaa kontaane nee na ma laaj jongul bandul la ndam rek. voilà match est terminé. ASC Cap qualifié final ASC Cap qualifié final les gars. Asek a qualifié final, éliminé pour l'équipe de l'AC Ndiayen. Asek a éliminé la Ndiayen. Aseka a éliminé La Ndiayen, les gars. Voilà les gars, on se donne rendez-vous Tamay dem préparer li nga pour modi deuxième heure bi bu bouger surtout wa damay ñëwaat légui-légui, jëlaat ñi nga xamante ne ñoom ñoo di l' équipe de la Sindiane l' équipe de ASEC de Ndargu Ndaw léegi muy noonu.